asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen euh, jégalu bu baax ci géej gee dugal ay video ci YouTube euh, tey nag ma ñëw indil leen benn euh, vidéo boo xam ne maa ngi wax ci courbe virage ak danger yi nga xam ne ñoo ci faral di am bu ci loolu maa ngi expliquer ñetti quiz yi ñetti groupe groupe quiz yi mooy percorrenza di una curva mooy boo nekkee ci virage di daw percorrere mooy daw circuler ci curva ribaltamento in curva mooy oto boo xam ne dafa daanu ci virage comme oto bi nga ñëw ci virage contrôlé ko mu këpp ah. ak forza ribaltante forza ribaltante mooy force boo xam ni euh, force boo xam ni dafay daane oto bi ci virage sempre ñett yooyu laa bëgg a aborder tey ñu commencé ci percorrenza di una curva boo nekkee ci virage di daw mu ne quando il veicolo percorre una curva véhicule bu fekkente ni dafa nekk di percorrere percorrere mooy muy daw ci curva ci virage ah buy daw ci virage e assoggettato ad una forza che tende a spostarlo l'esterno mu ne dafa am force boo xam ni mooy mel ni day buux oto bi da koy mel ni ku koy pousse pour mu génn virage bi mu dem l'esterno mu dem ci mboy ga mu génn wàcc wàcc tali bi mais ci biti verso l'esterno attention quiz bi dafa am piège euh, dafa am ñaar dafa am ñaar kii verso l'esterno la wax kii ci suuf yi mu ne verso l'interno ci falso yi mais verso l'esterno la ci virage boo ci saaraane ci biti nga jëm mais da doo dugg ci vite doo dem ci ligne terme les l'externe nga jëm ma wan leen ko en image pour mu gën a leer exemple bi mooy li ngeen di gis nii oto bi dafa dugg ci virage ci ab courbe tali bi du tali bu jub kocc mais dafa viré dafa nekk ab virage léegi chauffeur bii nii bu fekkente ni deful ndànk di daw lu bari bu perte contrôle xam nga boo daw lu bari ci virage mën nga saaraan léegi bu saaraanee au mu dugg fii ah fi nii lay dem verso l'externe la jëm verso l'externe la loolu moo tudd force bi nga xam ne moo koy ñoddi yóbbu ko ci biti force boobu ñu ngi koy wooyee forza centrifuga force centrifuga la tudd loolu ñuy def patin supérieur dañ koy gis lu bëree bëri. Euh, ñu continuer dafa wax ni quando il veicolo percorre una curva véhicule bu fekkee dafa nekk ci virage ñu ngi fii. bu fekkee dafa ne ci virage di daw percorrere di daw la velocità eccessiva vitesse bi nga xam ne dafa eccessiva dafa ëpp vitesse bu bari bi pour provocarne lo sbandamento mën naa provoquer sbandamento mën naa tax oto bi saaraan oto bi déraper oto bi dootoo ko mën a contrôler loolu mooy sbandamento kon boo nekkee ci virage da war a wàññi sa vitesse tegg sa tànk daw ndànk quando il veicolo percorre una curva ñu ngi fii la velocità eccessiva può provocare Ribaltamento mu ne bu fekk dafa ne ci virage vitesse bi nga xam ne dafa eccessiva dafa ëpp velocità vitesse eccessiva bi nga xam ne dafa bari dafa ëpp mu ne mën naa tax oto bi def Ribaltamento mën naa tax oto bi daanu oto bi këpp è vero léegi falso yi ñett yi falso la dafa wax ni quando il veicolo percorre una curva è e assoggettato ad una forza che tende a spostarlo verso l'interno gis nga li mu indi ci kaw la répété waat fi mais baat bu mujj bi la changé def verso l'interno déedéet verso l'esterno la war a wax kon falso la bi Bene ne dicono quando il per percorre una curva si deve aumentare la velocità per evitare lo slittamento mu ne da nga war a aumentare da nga war a yokk vitesse bi aumentare gis nga deve aumentare la velocità mu ne da war a yokk si vitesse per evitare lo slittamento pour oto bañ a glisser e falso boo aumentare la velocità oto bi dina glisser dina def slittamento bi ngay bañ dina ko def slittamento mook sbandamento ñooy mooy déplace mooy glissement oto bi nga perte contrôle mu di mu glisser mu saaraan di dem quando il veicolo percorre una curva véhicule fekk dafa nekk ci virage si deve aumentare la velocità mu ne da nga war a aumentare maanaam oto buy percorrere una velocità bu ne si deve aumentare la velocità rek dafa falso ndax vitesse boo nekkee ci virage waroo yokk si vitesse per evitare il ribaltamento pour bañ oto bi daanu è falso boo yokkee si vitesse oto bi dana def ribaltamento dana daanu dana këpp ñëw ci beneen série quiz Euh, i ribaltamento in curva ribaltamento mooy oto boo xam ne dafa këpp dafa daanu ci virage i ribaltamento in curva del veicolo mu ne ribaltamento boobu ci virage bu véhicule bi è favorito bokk na ci li nga xam ne moo koy favorire moo koy indi moo koy gën a mën a indi un carico post in alto bu fekkee da nga caricare sa oto mu kawe ko bi kawe dem ba ci kaw li muy gën a kawe rek euh, di gën a di gën a neex a daanu yomba daane ci virage ma indi leen ci ex euh, misaal euh, misaal baa ngi ni gis ngeen euh, camion bi oto camion bu ndaw bi dafa ne ci ab virage ab courbe la nekk gis nga yoon wi dafa viré léegi moom mu carré carré in alto li dafa kaw ëpp dafa gën dafa dem ci kaw léegi bu nekkee ci kaw daanaka force li nga xam ne mooy doole oto bi ci kaw lay féetee boo ñëwee ci virage lii nii dafay mel ni oto bi day wengal oto bi ndax gis nga ni oto bi def léegi waa ji li muy gën a daw di gën a nekk en risque am na nu muy demee rek nii lay def daanu egg ci suuf kon ribaltamento in curva bokk na ci li nga xam ne moo koy faral di indi mooy ko posto in alto bu fekkee da nga cari dara mu jëm kaw wala nga nga jël benn affaire wax mën naa tege ci suuf nga daal di ko aj ci kaw loolu mën na ko daane même sa oto sax boo ci doon booy booy cari cari bagage yi loo xam ne mën naa dugg ci biir oto bi nga daal di ko teg ci ka oto bi mu kawe loolu tamit mën naa indi lii lu mel ni ribaltamento Euh, ñu jàll ci beneen quiz bi dafa wax ni ribaltamente in curva del veicolo è favorito dal carico non stabilmente fissato bu fekkente ni sa oto da nga ko carré ay bagage mais ni nga ko fixé ni nga carré carré bagage yi yoo ko mu am stabilité stable mooy mu tege benn place taxaw fa nekk fa bañ a yëngu bañ a bouger loolu mën naa di indi ribaltamento mën naa tax oto bi daanu imaginel yow nga jël sa sa sa oto jël benn barigo def ci ndox daal di koy teg ci oto bi ci ginnaaw léegi nag takk ko ko defoo dara di daw ñëw ci virage barigo bi ni muy def day daanu te barigo bu mag bu dee dafa def ndox ndox dafa am doole daanu boobu muy daanu ndox mi mën naa ñëw dal ci rebooru oto bi daane oto bi kon kaariko bi nga xam ni bu fekkee ne dañ koy def ci oto fixé ko bu baax te xam ni da ngaa gàtt da ngaa yenu lu diis booy daw nga bàyyi ko xel waaw loolu la bëgg loolu la bëgg wax ci quiz bi mu ñëwaat ne ribaltamento in curva del veicolo véhicule bi bu fekkee dafa ne ci Euh, ribaltamentum li koy faral di indi e favorito bokk na ci li koy faral di indi una ridotta distanza fra ruote dello stesso asse asse boo ko déggee mooy acier maanaam pneu yi ci kanam ñoom bu ndeyjoor bu càmmoñ ñoo bokk même acier pneu yi ci ginnaaw ñoom ñoo bokk même acier léegi nag diggante bi nga xam ne moo dox seen diggante nag li nga xam ne moo leen séparé diggante espace bi ne ci digg ci digg bi kooku moom la ñuy wooyee una carreggiata del veicolo xam nga carreggiata dafa am ñaar bu leen ko jaawale Karadiata stradale bi ngeen jàng ci code bi ba ngeen soog a commencé leçon yi bokkut ak Karadiata bi ñuy wax nii jaata bi jëmi oto bi lay waxal maanaam diggante distance bi dox ci diggante euh, pono ndeyjoor bi ak pono càmmoñ bi loolu mooy Karadiata loolu mooy Karadiata euh, pour exemple bu ñu ne Karadiata del veicolo mooy li ngeen di gis nii li nga xam ne moom la affaire bi indiqué maanaam diggante pono bi fii ba fii diggante bii mooy Karadiata del veicolo léegi nag. oto bu fekkente ni dafa nekk oto bu xat boo xam ne bu tuuti la oto yu ndaw yooyu noonu kooku carreggiata euh, euh, stretta lañ koy wooye carreggiata bi carreggiata bi nga xam ne moom mooy carreggiata véhicule bi dafa xat bu fekkee ne dafa yaatu carreggiata ampio la ñuy wax wala larga léegi nag bu fekkee dafa xat nag euh, oto boobu xam nga dafay gën a neex daane waaw dafa gën a neex daane parce amul ab pojjo toogul bu baax dañ daan wax sax bañ nekkee xale naan Mercedes dafa yaatu moo tax du këpp du daanu genre wax yooyu ndax li tax lu tax ñu ko doon wax mooy euh, ni mu toogee ni mu ni mu yaatoo Mercedes pneu yi dañu am distance yu yaatu seen biir bon man du ma expert loolu mais dama ko daan dégg léegi nag dañu jàpp pour misaal rek moo tax ma indi ko kon espace bi nga xam ne moo séparé ñaari pneu yi loolu la ñuy woowee carreggiata del veicolo bu bu lañ ko jaawale ak carreggiata stradale léegi carreggiata boobu bu fekkee dafa stretto rek bu fekkee dafa xat la carreggiata stretta day tax auto bi gën a mën a daanu mën a këpp ci virage waaw beneen bi mu ne ribaltamento del veicolo in curva del veicolo oto bi bu nekk ci virage li nga xam bokk na ci li nga xam ne moo koy faral di daane è favorita da un la un raggio di curvatura della strada piccola strada bu fekkee ne virage bi dafa xat raggio mooy rayon virage bu fekkee virage dafa xat lool oto bi bu deful ndànk mën na daanu imagine nga ñëw foo xam ne dafa xam door nga war a virer di daw lu bari ci suuf la jëm day daanu kon radio di curvatura mooy rayon mooy li nga xam ne mooy jëmi virage bi bu fekkee dafa xat rek oto bi mën naa këpp mu ñëw ci falso yi mu ne departamento de une curva del veicolo è favorito da una ampia distanza ampia mooy lu yaatu ampia distanza euh, fra ruote dello stesso asse non non pas ampia distanza bu fekkee dafa ampia dafa yaatu rek bu boobaa day gën a nekk en sécurité bu fekkee dafa dafa ridotta distance nag di curvatura dafa dafa xat bu boobaa lay gën a day nekk en danger il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da un carico posto in basso gis nga fi in basso la wax bu fekkee da nga jël ab bagage fixé ko ci suuf loolu dana tax mu nekk in in uh, in dans danger pour def ribaltamento è falso in alto la ñu waxoon ci kaw in alto posto in alto kon li falso la beneen bi dafa xam ni ribaltamento in curva del veicolo è favorite da un raggio di de la strada ampio raggio bu ampio du indi mm, ehm, nekkul eh, du favorire ribaltamento eh, ridotta wala ni nga ko waxee fii eh, stretta boo xam dafa stretta curva stretta loolu mooy indi ribaltamento mais bu fekkee dafa curva larga loolu mën naa bañ a ribaltare léegi ñu ñëw ci ñu ñëw ci quiz yu mujj yi la forza ribaltante force bi nga xam ni nag mooy indi ribaltamento force bi nga xam ne mooy tax oto bi daanu mu ne la forza ribaltante in curva force bi nga xam ne mooy daane oto bi ci virage aumenta day yokk all'aumentare della velocità lu vitesse bi gën a bari force boobu di gën a bari maanaam ki nga xam ne dafa ne ci virage bu defu ndànk bu dee daw lu bari li nga xam ne moo mooy daane oto bi day gën a am doole oto bi gën a jëm ci suuf la forza ribaltante in curva diminuisce all'aumentare della velocità è falso mu ne force ribaltante bi day diminuer day wàññeeku bu fekkente ne vitesse dafa yokku è falso euh, fii euh, aumenta all'aumentare hmm? mooy vero aumenta all'aumentare diminuisce bu fekkee dafa diminuer kese kon euh, loolu moo nekkoon sunu quiz tey di wax ni rek yëf yi muy noonu quiz yi moom ku ciy gën a góorgóorlu di ko def bu baax a baax mën nga cee am résultat yu baax video yaa ngi noonu nag ngeen commenté ko aimé ko Euh, incha allah te abonné ci page bi jërë ngeen jëf